yéen ko gis nag Gambian Talents TV Gambian Talents promotion nii leen def jël si yëre yi génn a si nit ñi jàppale leen ndax te am na ñoo xam ne euh, seen doole jot seen gannaaw su ko defee rek ñu def si Gambie bi def si sotti si la soo si sottee rek mu am njëriñ euh, kon nag gis ngeen ko ñu ngi fii ndee village ñu fi jógee ñu ngi demaat feneen si beneen compound pour jàppale ñi nga xamante ne nii seen loxo jot seen gannaaw Aida, um, euh, dama gis all the time Gambian talent da ngeen day tok si internet bi di wax ñiti ñu jappalé len. Euh, kon yéen ñiti suñu len jappalé, yéen tam da ngeen day jappalé ñeneen. waaw motax mané Gambia bi sorti si def si la. soo joxee Gambian sané wu loko ci biti si Gambia bi nga ko Ndax té lu ndaw luñ am gis ngeen xalé yi ñi jappalé ñi nga xamné ni amuñ liggéey ñi graduate from school amuñ luñ def ñu ngi la na jappalé tek si amul si ñi ngay jël lu ñu jox lu ndaw ak lu tuti tuti ñu bokk ko new gi fi ci biir réew waaw waaye am na ko tey defut ko jërëjëf Aida Kébé